abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi. mu mel ni li Alquran wax pour orienter jullit ñi ci melokaan yu rafet melokaan yu sell te teey melokaanu jullit piir tax na lépp loo xamante ni rek jiko bu tilim la dana ko dàq ci société bi loola taxoon ginnaaw naafiq yi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee jógee màkkatal mukarrama dem madinatul munawwara dafa amoon naafiq yu saay-saay kalaasu Abdullah ibnu Ubay nga xamante ni ay naafiq lanu melukaan woowu nga xamante ni ci jaahiliya moom la nit ñi melokaanoo woon te moo di jël seen jaam di leen yóbbu ci yi di leen jaay e loolu itam bi l'islam ñëwee nafeq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigéen ñi rek ku ci am sa jaam bëgg ko force ci di ko jaay di jaay muy jaay boppam ñu ubbi ay néeg ku indi sa xaalis rek Mu bàyyee la ko nga faj sa soxla demaat yàlla nag ne bu njëkk bi amoon na ndax boobu yonent yonent bi ñëwaguloon woon waaye comme yonent bi nag ñëw na sharia am ma wàcce alquran li ma leen di wax moo bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcé fatayaatikum seen jéebéer yi alal bixaayi ci di leen jaay di jaay seeni pëy in arad na taxassunan su fekkente ne ñoom ak kellete ñor na leen bu fekkee dañoo dem ba bëgg a sell ci seen bopp bëggatuñoo mooy lu dul dañoo bëgg a nekk ay jigéen ñu yiw te sell nekk ay jigéen ñoo xamante ni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xam ne nit lañu ndax Omar ibnul Xataab radiallahu anhu dafa wax wax bu am solo daf ne mata mastaabattumu nnaasa faqad waladathum ummahatuhum axraaran mu ne bis bu ngeen jàppee nit ñi ay jaam ba di leen loo na ngeen xam ni ba leen seen ndey yi di jur boobu ay gor yu set wicc leen xanaa kay ëpp doole nit ki rek def loo ko lala la neex la mu mel ni kon loolu xewoon na bu njëkk waaye jaam leen ko daan def léegi nag ay gor piir lañu koy def boo demee ki tubaab yi civilisation boobu moo fa am te moo di ubbi nañu ay hôtel ak i barab yoo xamante ni ay jigéen ñu baax ñoo xamante ni ay jigéen yi jullit lañu yàq nañ seen xel indil leen ay xalaat ay idéologie yu baaxul fexe itam ba mën leen a jëriñoo ci wàllu boobu yóbbu leen ci hôtel yi ñu nekk ay jigéen yu rafet ko defee duñ fa nekkee lu dul jaay seen bopp jaay nag seen valeur ndax jigéen ëpp na ni ko tubaab yi jàppee jigéen daal moo di valeur am mooy ni ko lislaam jàppee te moo di dafa bëgg rek ak cell te ci moom bëgg mu sell bëgg itam mu xam gëddaam mu mel ni jigéen ñi nañu bàyyi seen bopp xel xam ne ay mbindeef lanu mbindeef lanu yoo xamante ni ni yàlla terale góor la leen terale te itam góor gu fi wëliyu jigéen jur kon jigéen am na martaba bu foor waaye ci kaw nag mu xam boppam ba tax na itam loolu arab yi dañ ko daan def yàlla tere leen ko tere ko jullit ñi wax ne bu leen ko def li tabtaxu aradal xayaati dunia bu leen ko def pour rek mën cee sàkkoo gaar gaaru àdduna te mooy poñetum àdduna dërëm rekk ngeen ci wut dërëm jaru ko dërëm warul tax ngeen jaay dignité jigéen ndax jigéen ëpp na foofu wante nag lislaam luñ la forcé yow jullit bi doonte neexul yàlla ba def loo la ko te loo ko itam yow yàlla wàccoo na ak yow topp la dara kala forcé kay la yàlla di topp léegi moo tax mu ne may wa man yukrihunna képp koo xamante ni forcé na jaam yooyu ba def loo leen lu bon yooyu may tere fa inna allaha min baadi ikrahihinna gafurun rahim na ngeen xam ne yàlla gannaaw ba ngeen leen force ci ñuy def lu bon loolu na ngeen xam ne yàlla gafurun jéggalaa kon la ndaw suusu ngeen forcé rahimun yërëmandaa kon la ci ndaw suusu ngeen forcé waaye nag tëkku la ci ka nga xamante ni moom moo forcé yow mi forcé yàlla tëkku na la ci ki ñu forcé nag yàlla sànni na ko njëggalam ak yërmandeem xam ne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekkee dañ laa forcé te ba ñu lay force itam fekk na sa xol limaanang ca boofu itam yàlla amut ak yow benn affaire mu mel ni jigéen ñi tere bi leen yàlla tere pour ñu génn jamono dem na ba léegi toog ci biir kër yi amatul ndax kenn mënatu toog toogloo jigéen ñi ci biir kër yi wante itam comme jamono indi na loolu te mag ñi dañu wax ne laa bu dahra fa inna fa inna allaha huwa dahr bu leen di ŋàññi jamono ndax yàlla ci boppam moom mooy jamono comme yàlla nag ci maandoom ak yërmandeem ni jamono bi tëddee tëddee na ko ba noppi li nga xamante ni rek moo ñu ci musal mooy muy ku góor ki di ku jigéen ki kenn ku ci nekk bu génnee na fexe ba nekk rek ci la ko yàlla sant te moo di yow ku jigéen ki lañu la tere ne bu mu feeñ ci sa yaram bu mu feeñ yow ku góor ki itam yàlla waxoon na la ne na nga gëmm sa bët qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum zalika azka lahum inna allaha xabirum bima yasnaun kon lu yàlla sant jigéen rek sant na ko góor kon jigéen ñi bu ñu génnee nanu fexe ba yor comportement bi nga xamante ni moom la lislaam bëgg jigéen góor ñi itam bu ñu génnee nanu fexe ba yor comportement bi nga xamante ni moom la lislaam bi bëgg te moo di ñu damm seen bët te itam sàmm seen pay te itam fexe ba col gi nga xamante ni moom la yàlla wax ne neen ko solo ñu fexe ba solo noonu mu mel ni nag jamono def na ni jigéen fokk mu génn Seydina Alioune am na lum ci wax nee na daje bi nga xamante ni moom la nit ki di daje jigéen ji ci mbedd mi nee na loolu ndogalu yàlla la moo tax ñu ne kon su sa bët rëccee ba xool ndaw si ba gis itam ci moom lu araam nee neen xool bu njëkk boobu may nen la ko ndax daje ba yàlla ko waral wante na xoolu ñaareel ba dañ ko araamal lu tax ndax Seydina Aliyu nee na nag nemmeeku ndaw sa nag di ko setantal di ko xool nee na loolu nag ci sa bakkan la jóge waaye daje ba nag yàlla la kon ñu fexe ba itam ñun góor ñi e te itam boole suñu bopp ci dairatul iman bu ñu génnee nanu fexe bay damm suñu bët lu jigéen ñi càgg sàggan sàggan ci col itam ñu fexe ba bañ di seetlu ndax bu ñu seetloo rek bàkkaar topp ñu ci jigéen ji itam am na lu ko yàlla sant ndax da nga gis jigéen joo xamante ni la muy jënd ci xeetu diw la muy jënd itam ci xeetu parfum la muy jënd itam ci xeetu pastel defar kanamam di diw di pastelu di mi yaram wi ba mu rafet di fu diw nga jënd lool lépp bu fekkoon seen jëkkër ya tax kon lislaam kontan dootul waxati dara waaye jigen ju ko def jënd itam yére yu cher soo génnee pour mbedd mi gis la rek a tax te itam bépp jigéen bu def loolu génn pour mbedd mi gis la na nga xam ne sa génn googu yàllaa ngi la ci rëbb ba ba ngay delluwaat ci sa biir kër kon nag jigéen ñi nañu xam ne am nañu yàlla wax ne ñoom ñoo sañu gis seen taar te moo di sa jëkkër ak say koj armal ñooñu na leen wan seen taar te itam da nga gis nit ku génne fii jóge fii dem ba Ndakaaru dellu siwaat ñamuy dajel ñépp waru ñoo gis awraam te itam ngay yow jullit nga loolu itam rafetul benn yoon mu mel ni bu ñu wax ne jamono bi dafa yàqu nanu wax ne ñun ci suñu bopp ñoo yàqu am na benn waykat bu ci wax ndax nee na yaquluuna alzamaanu bihi fasaadun wa hum fasado wa ma fasada alzamaanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yàqu na nee kat ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit yàlla du ko soppi feek nit ñu góor góorluwuñu feek nit ña sàgganuñu ba sàggane mbaax ma buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko su ko defee kon nit ñi nañu xam ne sabab leen ci am lu baax sabab leen itam ci ñàkk lu baax e mu mel ni dafa am benn waykat moo xamante ni dafa mënoon way trop ci waaye mu nga dëkk ca kaw ga ñu ni kii di ni mu mënee woy te dëkk ci kaw gi ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp ndax dafa nekkoon poète ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni ndar bi ñu ko indee ci dëkk boobu mu néeg ba tàkkusaan mu taxaw ci wetu pont bi daal di gis li jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool ni ñuy yéegee ci pont ba itam rafet lool loolu yéem ko te eh, arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abbu ko momale ko nit su dee ne jigéen ji dafa yore loos wu rafet dañu daan misal jigen joju ci kewel su fekente ni itam démarche am dafa rafet na manam doxinam dafa rafet dañuy jël misal bi ci baba njooli su fekente ni itam bëtam dafa rafet dañ koy jël ci nagu njaay àll mom nak kérok bi muy jël misalu jigéen ñoo ñu seen rafetaay daf ko jël ci nagu njaay àll loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa tax mu wax ni uyunul maha bayna alrasafati waljasr jalabna alhawa min xaytu adri wala adri nee na jigéen ñu rafet nee seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu nagu njaay àll nee na ñuy yéegee ca pom ba di wàcc ak na ñuy doxe ca beñ ba nee na dox boobu nee na jëmbët na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul maanaam yëg na ne moom sopp na leen te itam ña rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet mu ne wante keroog ba ma sama dal dem séti leen ndax ciofel buma am ci ñom nee na aksi ci kër ga berndeel nen ma teral nen ma nee lakal lakkal nen ma yap ma lek jox nen ma sawma naan tok nañu waxtaan nee nak nag ba ma ba yaakar ne jigéen ñu ñak fayda lañu ma commencé nak di wax wax yu xawa ñak fayda nee dañ ma freiné nak dañ ma yemalé ne na nga xam sa place na nga xam sa place nak ndax ñun weeru guddi lañu mën nañoo gunge tukkikat waaye duñu ko jox mu lekk ne ko suñu sharaf lañu am maanaam suñu dignité lañu am te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk sëy rek ay tax bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot waaye bu dool jàkka ja nag doo ci jot fii nag mën nañ la fee ganale ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan teral nanu la nag waaye foofu leen mën a yem ak yow yaqul na naxnu l ahillatu fi duja nudiu liman yasri bi laylin wala naqri maanaam ñun weeru guddi lanu mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk su ko defee itam jigéen eh, génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda mën naa génn ba pare am fayda motax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamanteni mom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaron ci bir kërëm mu wax ak ñom pour ñu xam ñom ñoy ñan mu ne len ya nisa annabiy لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخنية يننتبي دنك كبير كرم نلن يين سخنة يننتبي yéen de yemu len ak yeneen jigéen ñi te muy jigéen ñi gëmul yàlla yemu len ak ñoom su fekkente ni lañuy tuddee ragal yàlla mu ngi ci seen xol la ngeen góorgóorlu ba bu leen ñàkk fayda ci seen i wax xam nga jigéen am na nu muy waxee rek ñu xam ne amul benn fayda ci boppam mooy terme wax yi génn léegi waaw léeg-léeg nga dégg ñi naan safula la ñi naan du nii la du lii la ak e, yeneen i wax yoo xamante ni nit ku am dignité waru ko wax surtout nag jigéen moo tax wax yooyu xew léegi xewoon na bu njëkk yàlla nag di moytuloo e, waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nag loolu du seen wax bu ngeen dee wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda wala taxdaana bil qawl ndax su fekkee wax ngeen wax ba ñàkk fayda feeñ day tax góoru doxaankat bi am ci bunt bu mu mën a jaare pour exploiter ko su ko defee nag loolu nag lay bañ waaw moo tax mu ne fa yatma alladi fi qalbihi maradun waqul na xawlan maarufa kon nag bu ngeen dee wax na wax wax bu diiñ waqar na fii buyutikunna na ngeen toog nag ci seen biir kër yi waaw xanaa soxla rek tax waaw bu dee yitte nag boo xamante ni farata la kooku mën ngaa génn dox ko waaye bu jeexee dellu siwaatal ci kër gi bu dee élève nga boo dee jàngi demal nga jàngi bu dee dem marché bala demal marché ñëwaat toog waaye jigéen joo xamante ni fu ne yànga nga fa fu ne yaa fa kër gu nekk yaa fa loolu itam rafetul benn yoon ci koo xamante ni yaa ngi wuyoo ne jullit nga moo tax waqar na fii buyutikunna wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatil ula xam nga tabarruj bi sax dafay xaw a niroog baraj baraj fu nekk nga ne fa baraj dugg ana diw ñu ne génn na jaar na fii waaw nit ku baax ku lay wusi ci kër gi pour soxla la soxna sax bu ñëwee ñetti yoon fekku la fa day mujj découragé naan kii itam moo ko takkee du toog moo tax wala tabarruj na tabarrujal jaahiliyatil ula jigéen ñu njëkk ña nga xamante ni amuñu woon diine yàlla waxut ak ñoom yonent bi waxut ak ñoom ndax xamuñu dara ñooñu loolu moo daan seen melokaan yow nag xam nga waaw jàngal nen la wan nen la itam yoon wi xam nga ko kon nag pour nga mën a am valeur toogal ci sa biir kër waaw bu soxla ñëwee nga doxi bu fa soxla nekkul nag nga toog sa baay di la gis sa yaay di la gis ba keroog sa jëkkër di la fi jële te bu la fa jëkkër jëlee itam ba yóbbu la ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore woon ci sa kër baay te moo di booy génn nga génn ci sa ndigalu jëkkër ndax wax nanu ne bépp jigéen boo xamante ni génn nga sa kër te tàgguwuloo sa jëkkër nee na tànk boo seqi ñu bindal la bàkkaar ba ba ngay dellusi kon bu leen di baraj baraji comme ni koy jaahiliyatul ula daan defe wa aqim na salaata na ngeen di saxal julli di julli nag waaw ndax ni ko yàlla santi góor noonu la ko santi jigéen waati na zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yàlla dénkee alal itam nga war cee génnee azaka na ko génnee wa atiana allaha wa rasulahu na ngeen topp yàlla nag ci lépp lum leen digal topp itam yonent bi ci lépp lum leen digal waaw yàlla nag ne yonent bi innama yuridu allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt waaw yàlla yow yonent bi na nga leen xamal ne man yàlla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sell itam xam ne yemuñoog ñeneen ñi yemuñoog yeneen jigéen ñi waaw dama leen bëgg a laabal waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayati allahi wal xikma yàlla itam nee na alquran ji nga xamante ni maa ko wàccee ni ko góor di jànge noonu la ko jigéen war jànge ni ko góor di jànge noonu la ko jigéen war a jànge jigéen daal dafa war a góorgóorlu ci boppam lépp loo xamante ne rek yàlla sant na ko góor ci diine ji sant na ko jigéen su ko defee nag loolu melokaan woowu mooy tax nag nga mën a bokk ci jigéen ñu teey ña jigéen ñu yiwu ña te baax xam nga Umar ibnul Xataab radiallahu taala anhu bi mu nekkee amiral muminin yàlla dafa dogal mu nekkoon ku am yitte su guddi jotee da daan wër dëkk bi mel ni kuy nemmeeku mbooti dëkk bi pour xam li nëbbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk e, jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk nekk amir bi bëggul ëllëg benn àq di ko ci topp muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci bunt kër yi pour xam lan moo xew yàlla dogal benn bis mu romb rekk ci benn kër fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax mu taxaw di leen déglu ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen te soow moomu ñuy jaay ci lañuy génnee seen dépense yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow bu ñu ko jaayee du mat seen dépense yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko jëlal pot bi nga tànk ci ndaali yokk ci soow mi ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat ndax li fi nekk ci soow bariwul xale bi ne ko yaay Omar ibnul Xataab amiral muminin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi ndax nee na yonent bi tere na ku njar mu ne ko Omar ibnul Xataab amiral muminin nekku fi te itam gisuñu kon demal nga def ko mu ne ko yaay ñun ay jullit la du te te dañu war a ragal yàlla te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Omar ibnul Xataab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis ndax yàlla moo moom Omar moo ñu moom mu ne ko ah, doom de wax nga dëgg xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaayi li fi nekk mu ne ko waaw kay loolu kay yaay moom moo gën Omar ibnul Xataab ndeke ni mu taxawee ci bunt bi mu ngi dégg kàddu yooyu mu daal waaxu rek continuer dem këram waaye fexe na ba xàmmee kër gi fexe na ba xam itam ndaw si doon wax ndaw su jigéen si ki e, yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi omar fexe na ba xàmmee ko nga xamante ni yàlla dogal na omar ibnul xataab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba maandoo taxoon nag mu mën a génn te kenn du ko garde maandu moo taxoon ak jëmbët njëkk ak taraanga ak itam e, sécurité bu nekk ci lislaam ba mu mën a e, société bi mën a dal tooñ du am dara du am looloo taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps du ànd ak dara bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi moom Omar ibnul Xataab ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdullah ibnu Omar te Abdullah ibnu Omar ku ne dégg na ko ci xam-xam waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdullah ibnu Omar moom keroog ba mu bëggee takk soxna Omar ibnul Xataab daf ne ko alquran di dafa wax ne at-tayyibuuna lit-tayyibaat maanaam jigéen ju teey góor gu teey te yiw ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk waaw góor gu teey te yiw mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may mu ne ko nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak way juróom wu jigéen kooku daal sama xel dal na ci moom su ma sañoon moom laa lay may keroog Omar ibnul Xataab radiallahu taala anhu jigéen jooju ndaw soosu doon yedd waajuram moom la may doomam jooju di Abdullah ibnu Omar kon mu mel ni Omar ibnul Xataab tak fekk na famille bu ñàkk bu amul dara mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la mu may ko ko lu tax ndax jikko ju tey ja nga xamante ni moom la gis ci moom mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol ba alquran rek la jëfe ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp foog ñu dellu ci alkitab ak sunna jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet yi nga xamante ni yonent bi amoon na ko ay saxaabaam am ko ñoroy leen ci bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan mu nekk loo xamante ni eh, dafay mel ni rek eh, nappkat bu sànni osam ci géej da ngay yaakaar ne la ngay wuti yiw la fekk sak alkande la su ko defee ñu xam ne lislaam mooy suñu ndono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawm al axir mu mel ni bu fekkente ni rek war nanu jëfandikoo sunna yéen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فاو يننت بمو نيو غنا ياي تي سونو بوب فاو اي سخنا ميتام نيو دي سونو ياي كون لي موي كين كو تي نيك تي يين ورنا جيما خام سخنا يننت بي صلى الله عليه وسلم جيما خام كان موي خديجه جيما خام ايتام كان موي سودتو soxnaam la woon jéem a xam kan mooy Aïcha jéem a xam kan mooy Xafsatu bintu amiril muminin jéem a xam kan mooy Zeynabu bintu Xuzayma alhilaliya jéem a xam itam kan mooy ummu salamata jéem a xam kan mooy Zeynabu bintu Jaxsh jéem a xam itam kan mooy Sofiyatu bintu Xuyey jéem a xam itam kan mooy ummu Habiba jéem a xam kan mooy maymuna bintu xarit al jéem a xam kan mooy juwayriya bintul xarit jéem a xam kan mooy mariyatul qibtiya jéem a xam kan mooy rayxaanatu bintu shamoun ni ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe mu mel ni bu dee xadijatu bintu xuwaylit moom ci giir quraysh la bokkoon moo jur itam doom yi yonent bi am yëpp ba mu des kenn rek kenn rek la jurul moo di ibrahima te ibrahima mariyatul qibtiya moo ko jur yonent bi alayhi wa kontaan noon na ci xadija ci jikkoom yu rafet jikkoom yu dëppook lislaam ba tax mu ne na ngeen bashiru xadijata bi baytin fil janna mu ne woonaa mbégte xadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna su dee sawdatu bintu zamaa moom mag la woon bi ko yonent bi di denc waaye ku muñoon la e, ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla jëkkëram moo doon sakraan ibnu amr dafa gaañu bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale sësul itam ci benn e, càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali lu dul moom condam rek la mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam waaye nekkoon ci ay difficulté nekkoon itam ci problème yu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën a mën ko defal mën a wàññi itam ay problème am looloo taxoon mu takk waaye bi mu koy takk mag la Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndeyam boobu ñuy wax sawdatu bintu zamaa wax na ne ma raaytu mraatan ahaba ilaya an akuna fi mislaaxiha min sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom waaw ci sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax moo di sawda sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom e, ñetteelu soxna bi ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiya bintu siddiq xabibatu xabibillah maanaam moo di mi nga xamante ni e, ku dëggu la woon te abubakrin itam moo ko jur te abubakar itam ku dëggu la woon kon mooy di as siddiqatu bintu siddiq moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nañ ko waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara jigéen ju sell la ju baax ña ko tuumaal nañ leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq Eh, moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal jigéen ju amoon xam-xam la moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardi amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal axira yonent bi waxoon na ko ne ko yow Aïcha xanaa bëgguloo nekk sama soxna fii ci àdduna ëllëg itam nga nekkaat fa sama soxna kon itam kooku yonent bi bëggoon na ci moom kontaanoon na ci moom e, ñeenteelu soxna mooy xabsatu bintu amiril muminin moom amar ibnul xataab moo ko juróon moom e, jëkkëram mu ngi gaañoo ci xare badar mu ngi tuddoon xunaysa ibnu xuzafa moom nag xabs ku mënoon a woor la ku mënoon a jaamu yàlla la waaw mënoon na woor trop te mën a jaamu yàlla def na itam ci lislaam ay jaloore yu rëy moom Xafsa ndax am na kaamil bu ñuy wax boo xamante ni njàngin mi moom la ñuy wax riwaayatul Xafs ba ñu ko bindee ba noppi moom leen ko dénkoon moom Xafsa e, beneen am na beneen soxna bu ñuy wax Zeynabu bintu Xuzayma al Hilaaliya moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daf ko takk waaye nag fekkoon na mu sëy ba tas ndax Eh, abdullah ibnu jahsh moo ko takkoon moom itam mu ngi gaañoo ci xare uxut ci la gaañoo yonent bi takk ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mu ne moom ku gëmoon yàlla la te baax te yiw ku mënoon a muñ nee na moom leen daan tuddee yaayu miskin yi ndax dafa bëri woon yiw dafa bëri woon yiw trop waaw fu miskin masaana xiifee wala ku ñàkk foo masaana xiifee wala nga am problème sax